nee na mu forcé ni day dem defante jeeg Senghor ba ñu denc ko Kédougou waaye nee na bi mu génnee prison ñuy waxtaan nag mu ne ma man daal bu ma yëgoon la nga ma waxoon lay def ndax ca ca la sama jàmm nekkoon waaye lu ma ca rëccoon nag ci sama diggante ak yow bëgg naa ko dabu ak sunu doom ji ndax dégg naa discours ba mu def ca Thiès mooy 93 ba ca place de France waaw dafa mujj ñaan góor gi sax ni ko dafa bëgg ma ñëw nuyu si ko ca këram waaw góor gi ni ma jëlal Malick mbay nga jël Serigne Ndiaye waaw nga jël ñoom Khalifa Sarr ñooñu nga xam ni nit ñi miin nañu seen way jur yi ci man nga ànd ak ñoom nga nga dem nuy ci ko bi ñuy ñëwee ndeysaan léeg mu jox loxo kenn ni kii kan la ma ni ko kii mooy Malick Mbaye doom ci njaase mbay bi daan ànd góor gi mu ni wax a mu daldi di nuyu ni ma kii mooy kan ma ni ko kii mooy Serigne Ndiaye doomu Alaaji Malick bi neen ànd ak sëriñ bi mu gësam loxo bi ni wax a yor waaw mu daal di joxewaat loxo ni ma kii mooy kan ma ne ko kii mooy xalifa Sarr doomu Abdourahman Sarr bi naan ànd ak góor gi mu daldi di koy jël taf ko ci boppam waaw ni ma wàcc nga ku sa bàyyi ànd ak ña mu yëdd doon àndal nga xëy ànd ak seeni doom wàcc nga waaw waaw wallaay ndeysaan keroog wax na lu ne moom président ma du Dia encouragé ma ni ma noonu la ndax sa baykat ñun li ñu génne moo ñu ca génne waaw kon nag erreur boobu duñ ko def deux fois waaw benn yoon rek lañ koy def waaw kon nag na nga taxaw ñun luñ la mën a jàppalee dinañ la ko jàppalee waaw ko defee kon nag loolu rek moo fi nekk ku ne xam nga sa nit fa mu jaar ak yow moo tax biñ ma nee délégation président Ablaye Wade ñëw na ba fii ci résidence bi tabaarakallahu ak yóbbante ya ñu indaale ah wax kàddu ya ñu wax yëpp ma ah, moom de ku xool li woon démb sa xel war na man dal waaw ni Ablaye Wade de mu toog bañ ni président de la république bu senegaal ak liñ ko wan ak liñ ko dugal ci prison nga xam ni budul woon sunu fayda ak sunu taxawaay waxuma la nekk président waaye du génn sax prison man maa la ko wax waaw mu mel ni nag coono boobu moom la ñu jël teg ko ku mel ni Sonko parce que la ma wax ca anniversaire ba ni jàmbaar la gor la moo leen déranger ak la ma tudd Pape Alé Niang moo tax dañu jóge ca anniversaire bi rek ñu arrêté leen ñoom ñaar waaw boole ca Cheikh Bara Ndiaye waaw mais fekk na yooyu yëpp occasion la pour seen borom liggéey ndax lay ñëw moo gën di farata waaw bu ko defee rek kon xamuñu stratégie sax waaw ma ne ko xamuñu sax stratégie waaw dan nga gis ay nit yu jóg te bokk ci yeewi askan wi waaw ni dañuy seeti Sonko ca hôpital ba boo ko defee bu ñuy ñëwee mu daanu daanu lu crise waaw mel ni mënu wax parce que la ko intéressé wax na ko man ba noppi bu ko defee médecin yi leen ah dafa nekk dans le comment foog ngeen may ko ñu daal di jógaat dem fekk moo ci bëgg loolu waaw bu ko defee kon nag yooyu yëpp ci lu ñuy nettali rekk lay mujj man maa leen ko wax waaw ni jéem nañu tenter ba tey pour éliminer ko définitivement xam naa loolu xam naa lu ci nekk waaw waaw te yaaya ngi nii seede la ci man cheikh a ngi nii seede la ci man lëy ngi nii seede la ci man cheikh jaxate ngi nii seede la ci man waaw waaw ci mbaaxu yàlla ci mbaaxu yàlla incha allah waaw ba daan na koon nag ah, mu ngi naaj cours bi sax sorewul mais daara ji du jeex mais fii ñu tollu nii lii la réew mi laaj waaw nit ñépp ngi jongoro li ñu gis def leen derange te ñemewu ñoo tudd ndax ay kilifa ñoo tax dama xam ni boo ko bàyyee noonu ñoom itam ñu continuer noonu yaakaar bu tas boobu loolu baaxul waaw moo tax nag ma jël sama responsabilité parce que damay wax ni sunu boroom sunu borom du xuloo sunu boroom du xuloo day faj ndax day fekk lu mu ko wóor ni keneen mënu koo faj moom rek moo ko mën a faj mu faj ko et puis c'est du xuloo ay na nag ku ne mën nga ñoo dëkkal fu ne naa nga gis sax ñuy bind xam naa bu Mansour jóg jógee en tant que journaliste nekk ci leeral TV mu wax leen ko ndax dañu bind ci seen annonce ci suba ni man damay chercher électorat bu sonk lu ma koy doyee man sama électorat benn tolluwul ni moom di kon lu may demeti pour wuti électorat bu bu Sonko mënul nekk moom bu ma soxlawul man duma ko soxla te moom xam na lool loo taxoon bi bi mbokk mi ñëwee ni ma Sonko moo yónnee nee na nga may ko ay kart pour gàmmu gi ma xam ne xam na ni foofu la intérêt nekk ma boole Cheikh ak oustaz Cheikh Sarr ne ko na leen wutal ay carte te wutal leen ay laissez-passer mu yónnee délégation bi muy yónnee ñu ñëw fii te bokkul ak délégation bi ñëw ci Yewwi Askan Wi ndax nit ñi Cheikh Begg bi sedd la ci waxtaan ci ak moom fekk boobu ñuy waxtaane affaire candidature yi mais defe nga ni réew mu toll ni présidentielle ñun la soixante candidats ñooy xëccoo yëf yi loolu fu mu jëm te waa ànd bokk yaakaar genn wàll ga yépp ñii seet si nañ ma ñii yónnee nañu ma ndaw man lañuy déglu ni fu ma jëm yóbbaale leen waaw moo tax rek ku yóbbu tey lii marché mu ngi marché xamuloo waaw bu ko defee rekk bu la yàlla defee nga jeexal danga koy nangu tudd naa fi fii ñeent ku ci paase ñeent gëwma nga dem fu sore Senghor a fi jiitu woon Abdou Diouf moo ca topp Ablaye Wade topp ci Macky Sall moo clôturé même régime bi du jaadu pour mu continuer li ma wax xam naa ko dafa tolloog Sénégalais yi nag ñu ngi noonu waaw mais man li ma leen di wax xam naa ko waaw ngeen baal ma nag baat yi léeg dama cay toll waaw laaj ko capitaine mi Cheikh yu ma ngi toog ma ni capitaine sa turandoo moo ñaf sangoor ma ni ko man mii di sa mbokku daay daara maa ñaf Abdou ma ni ko Ablaye Wade nag parenthèse rek la moo tax jarul woon yenn yi ma ne ko waaye kii fi mujj nag ma ne ko sa cër la jëlal say disposition moo tax mu wax leen lim leen wax démb ni waxal li nga bëgg rek wax na dëgg waaw kon nag dina wax ak yéen waaw man dinaa wax ak ñi ma war a waxal man naa prononcé ci candidature bi mais jarul yàkkamti dafa am liggéey bu ñu bëgg a yeggale tuuti rek ndax ku ñu xam foo jëm doo fa yegg lu dëkk mu mel ni kon nag sunu gan ñi da ci am ñoo xam ne léegi ñu dellu ci seen liggéey fekk ñu wax yi ñu war a wax yépp ba noppi waaw ko defee ñoom ñu yeggale seen liggéey ñu nit ñu yeggale sunu liggéey rek waaw mais changement yi par A ou par B mu ngi ci kanam di ñëw mën na metti nag comme mën na bañ a metti ndax wakafa allahu almuminina alqital waaw